man de suba ba léegi damaa génnu sama kër dama génn léegi rek mm. ñu ne man nag yi ñu yeew fee moom kan moo ko fa yeew ma ne ko ci sama xalaat de loolu DG Port rek la mën a doon DG Port rek la mën a doon DG nag moom wax dëgg see yàlla fàttewul démb mm. ndax ndeyam ak baayam Derklé fii la ñu cosaanoo man fii laa yaroo fii laa màggee Gazelle boobu ba léegi nag balaa ñu koy fal sax ñu ngi xool li li muy defal waa goxam waa askan bi wax dëgg yàlla di kontaan ci ñoom ndax njaboot moom ku ko jàppale rek la xam. Mhm. mu ngi jàppale sunuy frère di ñu jàppale ñun jigéen ñi xam suñu gëdd xam suñu valeur kon nag du ñu mën rek lu dul di ko wax lu baax di ko ñaanal gudd fan ak wér man nag chaque fois dañ may bëgg jox micro damay bañ mais nag wax dëgg sa yàlla man daf ma jaral génn tele mbala mhm. yore micro di wax DG Port jaral na ma ko. nit ku oyof nit ku baax nit ku mën a déglu nit. ku jullitee ku mën a jàppale doomu aadama surtout oyof bi ndax ñun dañuy yoroon fii GIE euh, bi ñu François jiite ci les euh, femmes gazelles jabaram naaj bu tàng jër danaan déplacé wu ñëw toog ak ñun si sunu tee débat lu ñu xewle teew na DG ci boppam lu ñu xewle day jëgg tànkam ñëw te loolu nit ko oyof rek ko mën waaw ñu ngi koy gërëm nag di ko sant di ko ñaanal yàlla lu mu mën ren yàlla na man déwén lu ko raw ndax yokkute mooy sunu yokkute ñun nag dem di tàccoog di kii ñun dañu dépassé loolu ñun ku ñu jàppale ñu jàppale la mhm. naxaate yi moo fi jeex mhm. ak teg ci naaj beeg di la jox ay 2000 francs ki 5000 francs DG yënguwul ci yooyu mhm. ay millions la ñuy jox nañu liggéey leen dañu ubbil ay GIE ay entreprise di ñu jël di jël sunuy doom kon nag kooku dañ koy jàppale lu mu dugg dañ ciy dugg lu mu sumb dañ ciy sumb ndax nag wax dëgg yàlla nit moom mag moom bu dee naan ndox mu tàng suukar saa tax waaw ñun nag ku ñu jàppale ñu wax ko waaw ay naxaate moom dafay jeex tàkk taan ci moom rek li ma wax rek laay waxaat waaw na jàpp bañ a bàyyi rek ñun ñu ngi ci ginnaawam te ñëpp xam nañ ne jigéen dafa am doole mhm. jigéen ñi ku ñu jàppale nga dem mhm. te ñun ñu ngi ci ginnaawam dañ koy jàppale fu mu teg tànkam ñu teg fa sunu tànk ndax nag moo def lu ko jar lu ne fàng kenn du ko jeex boo xoolee nag yi ci ginnaaw lii du ñu ne guleet suukaru koor noonu tabaski noonu lépp noonu màggal Tuubaa noonu Tiwaawan noonu gàmmu noonu lépp noonu macha allah kon nag dañ koy ñaanal yàlla DG Port moom wax dëgg sa yàlla zéro faute macha allah waaw yàlla na ko yàlla jox commune bi te ñu ngi ci ginnaawam.